Euh, li RTS euh, xew Soleil Nous ñoo une maison de presse ñu ñu euh, nekk ay médias d'état ay journalistes ne nekk fa ndax ñu dafa comme ñu nekk ci Futurs Médias rek ay journalistes d'abord donc yooyu président Macky Sall ku ne xam na ne gën a mën ci mooy ëffal xeex ak seetaan fan euh, je veux dire man Sénégal des fois il y a de petites choses qui me font très très mal parce que les, Sénégal tout est urgence les, les euh, euh, urgence toujours les, a de le père de la nation man tort raison mais les, les, les, les, ñun sénégalais yi ñun ñuy consommer information ñun ñi nga xam ne ay journalistes lañ suñuy naataango nekk fa di dund loo xam ne lu metti la moom Macky Sall na sifflé la fin de la récréation wax naa fii ne li xew RTS ñëpp gis nañ ko ci li ñu war a ñëw la ndax euh, bu dee bu dee euh, lépp nag ci président Macky Sall la ndax xam nga njiit nu mu mel rek képp koo teg ci suuf tam noonu lay melaale euh, yëf yi ci kaw la pourriree di wàcc nag law ndax di toog di seetaan ay journalistes nekk ci mbedd bi Euh, amuñu jàmm li ni rafetul momu tok di setan On pas joli Je euh, euh, gis xam grand xam a ki a raison mais am solo président Macky Sall crise il faut savoir prendre des décisions il faut surtout savoir intervenir c'est trois nga xam bokk na ci ci message que Sénégalais

bala moom mi nekk casé na fa clientèle politique ñu mu soxla ñu gën a def na fi ay tiroir ay kenn xamul mais on en a pas besoin fu ne mu toll nii ñaari at moo ko même pas de 18 mois moo ko fi desee nee naa Macky Sall fi ñu toll dafa war a soppi bu nekk infirmier yi sol blouse te faj askan wi niñ pansement nanuy pensé pansement yi nag bokk na ci ñoo yooyu nga xam ne ay budget du fort lañ xaas bi mu dugal ko fa soxla nañu mu jël ko d' abord leeralal ñu moo tax la question Birame Touré ni mu Birame Seck ni mu interpellé nouveau député yi nii loolu dafa am solo. Mhm. bokk na si ñu leeral euh, xaalisu askan fi mu dugg euh, inondation yi le plan décennal ak yeneen ña nga xam ne ba tey ay sept cent et quelques milliards ñu dugal ko gisee nañu dara gisuñu dara chaque année ñu déclenché plan Orsec ci ngelaw li nañu xam loolu fan la dugg te yooyu nag ça par ñaari institution xam doyuñu ko dara dooruñu fayuñu. au conseil ak conseil économique social ñaar yoyu lan la rajaxe tek leen fé xaas bo amul fenn fu mu quel que soit bobu c'était la veille de de ñu ñuy waxé résultat provisoire provisoire yi te gis nga ku ne seetlu na ni résultat résultat provisoire dégo kenn ko contesté lool c'est important dégguloo kenn dégo benn camp bu contesté résultat yi génn donc dalay leer ne yooyu tamit définitif yi ñëw tamit day confirmer donc parce que même avant yoy di génn xamoon nañu à peu près euh, nan lay demee waxon na fi né Macky Sall perdu na quel que soit résultat yi nar a perdu, na majorité politique mais na fa confirmer né perd na majorité absolue loolu c'est clair et net xam nga nag motax euh euh je suis triste pour lui et pour le Sénégal suma ma ñu kay jay di ko nax nan ko wi gagné ngay gañewul dara qui a perdu ndax en 2017 nga amone 125 députés majorité plus qu'absolue en 2022 mais vous dëgg fa yàlla nga am 82 dégg nga tu perds 43 députés là tu es obligé de négocier mm-hmm. donc cohabitation bi c'est c'est une réalité maintenant donc yu mel non, c'est-à-dire li may tout le temps gis nga dëgg boo ko ragalee day rattrapé mm-hmm. xam nga te euh, moom Macky Sall il est ni il est obligé mon petit papa, mu tenir téye réew mi nag sénégalais ko classe politique je n'arrêterai jamais de le répéter sénégalais yi le programme voteeluñu x vote contre euh, voté contre sanction moi, sénégalais yi envoyé un signal très fort à toute la classe politique signal bon moi mooy dañu bëgg d'abord ñaar rupture changement moo tax ma ne wax naa fii passé ne ne waaye opposition bi ñom fiñ ñu doon loolu neex ni li xew assemblée nationale mais c'est la non la waron démé té non la war démé à partir de maintenant équilibre euh sénégalais message bu ñu yónnee Macky Sall lépp dafay retourné waat ci compte moom ndax euh, boo nee j'ai j'ai compris en 2020 mars 2021 fekk comprendre dara dégg nga euh, <laughs> euh, nga prouver mais tu n'as rien compris sénégalais war la attends comme déggoo ñun dañ lay dañ dañ lay duut baaraam. mooy li dal euh, euh, li dal li garaaw loo xam ne am Sénégal parce que moom amu fenn fu mun di référence li fi avant là il est obligé xam nga yàgg un fini, fii Macky Sall ku mën politique stratège, la xam nga loolu nag waxin la dégg la laaj. fii la war a wanee stratégie parce que là <laughs> c'est une question de survie pour il est obligé xam nga lu gën a garaaw mooy ne pas avoir le choix xam nga avoir le choix c'est fondamental mais Macky Sall amatul choix. Euh, manœuvre yi ñett ñii ñett ñett la ñuy cotiser. et malheureusement pour eux mooy su ma nee malheureusement pour eux c'est Macky Sall euh, waa Benno ak waa Yewwi Askan malheureusement pour ñett ñett ñett ñooñu euh, ñaar ñi moom je suis à peu près sûr. mooy Thierno Assane Sall moom fukki xel ak juróom-ñaar xalaatuñu maa day dem day dem jàppale Macky Sall xam nga koo du ko def fukki xel ak juróom-ñaar tam je je suis sûr moi à peu près que du dem. Euh, ba fekkonte ne day dem ci waa yi kon euh, du créé du bokk ci aar Sénégal aar Sénégal aussi ñoom euh, à tort ou à raison mais jàpp nañu ne Sonko yàq na leen lu bari mhm. donc te xam nga ñun Sénégal fi comme ni wax tout temps rek foofu c'est une parenthèse que j'ouvre pour rappeler loo xam yàgg naa ko wax seen coalition yi yëpp pourquoi Euh, mu am problème té lool benen équation lo xamni ne peut être dañ ko toj beneen yoon moy éclatement yi équation ndaxte ànduñu ci ci dëgg ànduñu ci programme ñi ànd ci xex kenn poussel kenn na toog donc yoy nak yu melni moy lay indi après mais je revenons à nos moutons mhm. donc euh, Thierno Alassane Sall mom non la ñëlé doom pap jibril je pense non la ñu lay doon ndax moo ko moo moo ko gën arrangé parce que li li su bëggé wuyu tour ba mu jox bopom mooy il est obligé mu nekk à équidistance. fii Sénégal lu gën a ëpp lépp solo ci doo ci àddina moo xam quel que soit li nga fi nga ne mooy crédibilité. parce que Pape Diop lu tax euh, euh, nit ñu ñu bëri am su moom dugg mooy euh, Pape Diop bu ñu fàtte ne un peu un vieux de la vieille Euh, libéral la yàgg na euh, euh, na aussi politique Euh, euh, am na yoo xam occasion bii mu am nii te aussi mag la mu ñu ko fàtte occasion bii mu am nii euh, euh, nga nga xam ne fu seen fu Sénégal toll fu réew mu toll nii euh, calcul yi moom foog mu am donc am na bu bëri na ay affaire ba homme d'affaires la aussi il a plein plein plein de trucs yoo xam ne ku mel ne Macky Sall waxtaan ak Pape Diop moo gën a yomb ci moom woo Thierno Alassane Sall ak woo xale bee Fall. te Pape Pape euh, Pape Diop Macky Sall mën na am ay quelques leviers yu mu actionné ba ñoo ñoo ñoom yaa ñu mën déggoo Pape tamit mën na ci profité waa la dootul euh, euh, Pape Diop am na occasion tey ndax ñu ñu yàgg na ba tamit fi bëgg a yàgg te amagul benn quelque chose amagul benn dividende bu mu war a am profité waale nag ci aubaine bii dégg nga moo xam ak saa ñu piisante biisuwante tàppante dégg nga lijjanti boppam Euh, xam ne euh, moom tamit euh, am na lu ko fi mu ngi noonu te Touba tamit wax naa ne xëy na askanu Touba ñoo rejeté Macky mais Macky Sall dafa am benn entrage moom ci kilifa diina yu bëri. yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotal yi yëral yëral.